nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñu ngi fii ci Pikine euh, rue 10 tali bu bees Pikine tali bu bees la ñu nekk euh, di masaw waa tali bu bees koñ bi Lamine Gueye mi ma jaakaar lool ci génn àdduna Ndongo géey ak ni mu génne àdduna seetaan ngeen ko tey suba euh, ci Sénégal en direct muy waa ji nga xamante ni dafa wàcc liggéey te xamul xamuñu ci ban anam la Lamine Gueye gannaaw bi ñu la masawoo ñu ngi lay nuyu di la jaal njaboot gi yëpp. waaw ñu ngi leen di fay. li euh, leen jaal yéen tamit ñu nu bokk wax ñëpp ñoo ko bokk waaw. ñoo ko bokk ñu nekk. ñépp waaw masawu ñëpp waaw. ñoo ko bokk euh, di euh, jaale la ko jaale famille bi ak waa Pikine bi yëpp mu nekk loo xamante nii lu leen bett la ndongo dafa mel ni ki moom gëj ngeen ko gis ay fan mën nga ci dikkaat. waaw ndongo gëj nañ ko gis depuis dimanche matin ndax dimanche matin. ci la amante woon ak rendez-vous waa ji nga xam ne daf ko waroon a jox xaalis ameel ko xaalis waa ji ko ameel xaalis war ko fay bon ci dimanche bi mu xëy ay 9 heures daal di tàggoo foofu pour dem récupérer ji xaalisam. fan la tàggoo. Euh, fii la ci Saf Baar Pikine waa ji foofu la dëkk. ci ginnaaw Saf Baar foofu la dëkk waaw. ginnaaw bi ay xaritam yi nga xamante ni si ñoom la ñuy àndal euh, bi 10 heures passé ba 11 heures jot daanaka mënatuñ koo jotaat téléphone ba booba noonu booba lañ ko gëj a dégg waaw ci lañ ko gëj a gis ci lañ ko gëj a dégg ginnaaw bi comme tàggoo woon na foofu ñu ne nañu woo waaj laaj ko ba xam biñ ko waajee effectivement moom nee na ñëw na fa ñu laaj ko mu ne jox na ko lim ko ameel fay na ko loolu la wax. fay na est-ce que am ngeen ay preuve ne fay na ko. am ñu benn preuve ni fay na ko waaw loolu mooy wax ji waaw ndax ñun bi toogee ba guddi gi gisuñu ndongo ci la xaritam bi dem nemmeeku ji foofu xool ba xam fan la nekk ñu demee foofu gisu ko mënuñu ko jot téléphone tamit waaw ginnaaw bi ci la ñëw. am ay doute daal xalaat ni am na lu xew daal waaw. Wally ce que euh, wax na leen bi mu fa ñëwee yàgg na fa wala yàgg fa ak est-ce que ñaata la ko yoreel xanaa xaalis bi dafa takku ay millions la. waaw man bi ma demee ba ay boor yi dix heures yooyu ci la bi woo ne saa daal ba léegi gisuñu ko dégguñu ko ci laa jóg sol sama yére ànd ak moom ñu dem kër waa ji may dem kër waa nag woo naa ko téléphone waa mënuma effectivement ndong ñëw na fi ba fay naa ko xaalisam ma ne ko da ngeen ne jote mënu ma déedéet jotewunu da ngeen am problème mënu déedéet ma ne ko baax na après ci ñu toogaatee quelque temps après laa ni xarit bi maa ngi ñëw jël si la ñu dem fa seeti ko comme moom la mujjee jëflanteel min demee fekk ñu fa waaje waaw fekk ñu ko fa ñu woo ko téléphone nangootuñoo jël jotatuñ ko ginnaaw bi ci lañ dem ba ay minuit une ñu ni nañ dem a dem police yi laajte ba xam daa lu ko dal wala dara comme waa ji nee na moom donc ñëw na fa ba ñibbi na fay na ko nañ jéem a jëm xool feneen daal ci lañ dem police géejawaay waa police géejawaay nañu nekk fii mais mën ngeen a dem waxtaanaat ak waa ji xool réaction bu dee mën ngeen koo gis mm-hmm. ñu jóge foofu dem police pikin waxtaan ak foofu tamit ki aaye garde foofu monte mu jox ñu moom tamit ñu jox ko filiation yëpp daal daal di dem après ci lañ jóge foofu dem police centrale bu Dakar waa police centrale nañu il faut ngeen bàyyi ba suba ngeen ñëw ñu jéem a téléphone bi ñu ni garaawul léegi biñ après ñu jóge fa dem euh, gendarmerie conk fekk gendarmerie bi liggéeyuñu tëj nañ heure boobu guddi na ñu ni garaaw léegi nañ jéem a dellu kër waa ji ba xam nañ ko gis biñ demaatee kër waa ji biñ fay dem il était deux heures du matin ñu dem fekk ñu ko fa encore ñu fëgg kenn ubbi luñu fekk am na kum suulyee ci biir kër gi fëgg fëgg ba sonn kenn ubbiwul biñ fëgg fëgg ba sonn si la waa ji kin suulyee daa taxaw ci bunt bi daan ne koo leen di seet ñu ne ko bas la ñuy seet mu ne bas ñibbisiwul tëddisiwul nekku fi ginnaaw bi ñun tamit ñu ne comme newu fi léegi nañ dem waa ji daal ne mën ngeen a dem ci suuf au premier étage parce que bas troisième la dëkk wala demee premier étage yaayam fa la dëkk ñu ne kon nañ dem fëgg yaay ji ñu dem fëgg yaay ji il était deux heures du matin yaay ji ubbi ak boroom këram ñu laaj leen bas ñu ne a ah, ñoom de bas war na war naa nekk appartement am ndax war naa tëdd ñu ne ko foofu leen njëkkee waaye gisuñu ko maire bi daal na ah kon xaaral ma sol mbubb bu ànd ak yéen yéeg ci kaw su ma fëggee dina ma ubbil ñu ànd ak maire bi ci kaw maire bi fëgg fëgg fëgg fëgg ba sonn kenn ubbiwul suul bi daal di ubbi bi mu ñëwee mu laaj ko ne ko ana bas mu ne ko bas rek tërsiwul fanaan siwul maire bi daal na ah, moom de fii la nekkoon doon wax naan boppam day metti ba ma may ko garab ma yaakaar ni tëdd na nekk te booba bas fanaan siwul ne léegi garaawul comme fanaan siwul te il est deux heures du matin nañ dem ñu daal di ñëw tëdd si ñu daal di ñëw ne léegi comme deme ne noonu nañ jéem a dem wëriwaat encore bi ñu wëriwaatee jamaat police Pikine ñëwaat encore police géejawaay falaa gaara woon sama oto waa police géejawaay nañu léegi da ngeen di dem police bu golf sud ñoom xëy na dinañ ay ci localisation ñu jóge foofu dem police golf sud bi ñu demee police golf sud waa golf ñu expliqué leen ni demee ñu bind wax ñu nañu dem leen ba suba subaa bu huit ngeen ñëw après nag ci leen ñibbisiwaat daal di ñibbi le lendemain ñu xëy man ma dem police golf sama frère yi dem Kër Bas ñu demee foofu rek ñu dem fëgg ko mu daal di ubbi. Kër saf baar ba tay waaw. waaw mooy waaj a ameel sama frère bi xaalis bi bi mu ubbee ñu expliqué ko nu mu demee mu wax expliqué ni sawaay ñëw ne fii abal na ko jox na ko xaalisam expliqué ñu ne ko léegi yow dañoo bëggoon nga ñëw ñu ànd. mu ne amul problème ñu ànd ak moom bi ñu ànd ak moom ñu ñëw hopital dala jàmm xool ba xam sawaay feebarul wala dara jotu ko gisuñu ko ñu ne ko léegi mënuñu laa bàyyi léegi dañoo bëggoon ñu ànd ak yow dem police golf sama frère yi sax ci leen ma woo boobu maa ngi police golf man leen indi leen ko fii bi ñu ko indee fii nag euh, police golf la ko waa police téye def enquete mu wax wax wax wax wax version am daal waa police na ko léegi nañ dem sa kër ñu ànd ak moom dem këram ñu demee këram waa ji na ko yow lan moo tax ñu fëgg la démb ci guddi ba sonn ubbi woo foo nekkoon mu ni moom mi ngi fi woon ci biir néeg bi fi la fanaan ñu ne ko loolu mënul nekk sa yaay sax ñëw na fëgg la mu ne déggu ko ñu ne ko yow sonnerie bi sonné nañ ko ba sonn ak ni sonnerie bi foore ak tamit euh, fëgg port ni mu foore déggoo ko. yaayam tamit waxoon na ne bu ko fëggee dina ko tijji. waaw ubbiwul mais li ñu xamal ni moom waxul dëgg bi ñu defee localisation bi waa police gis nañ ni trois heures quarante cinq du matin la doog ñëw ci kër gi ça veut dire que ay deux heures du matin nekk fi woon. mu expliqué ni moom fii la fanaan. loolu c'est suspect. loolu suspect la. Hmm. deuxième suspect bi mooy. din localiser téléphone bi. gis nañ téléphone bi gis nañ ni moom téléphone am ay deux heures du matin et quelque hmm. nekk na ci zone Malibu bi. deux nekk na zone Malibu. waaw. le même jour du rendez-vous le même jour le boobu noonu ay deux heures et dem na fi caaro yi nekk na fi caaro yi téléphone bi. téléphone bi nekk na Mali bu nekk na aussi boori Cambérène googu localisation bi daal. li mu génnee waa ji dox na ay. quelques yu bëri quoi ci guddi gi. Hmm. ba trois heures et lañ gis ni ci la dugg këram. loolu mooy deuxième suspect bi. Hmm. Hmm. troisième suspect bi mooy amul benn firnde bi wane ni moom jox na booy bi xaalis bi. la ko yore la ay six millions et quelque la. waaw business la woon seen diggante. liggéey la woon rek maanaam. ay bijoux en or la. yoo xam ne ndongo ci wàllu or la. waaw man mii ci laa yëngu. sama place la nekk. waa ji day jënd. day dem Dubaay jële ay marchandises bu ñëwee. jaay tëgg yi. waa ji c'est un bijoutier mi ngi doog ubbi place bu bees. il avait besoin de bijoux soxla woon na ay bisu ci la ñëw bi ndongo jógee Dubaay bi muy jël si bijoux yi maa ngi fa woon. Hmm. fekke naa ko parce moom bu jógee voyage man damay dem këram. ñu fekkante fa ma laaj ko kii kan la mënuma dañ maa booleek moom lu mu bëgg mënuma daal ubbi place bu bees dafa soxla ay bijoux mu jox ko d'une valeur de quatorze millions waa ji avance ko quatre million dem par la suite mu koy avance cinq cent mille un million ba mu des six et quelque six et quelque yooyu nag la ko xaw a dawloo tuuti foofu laa doon bëgg a ñëw avant muy fay lépp est-ce que amul woon tuuti coow bon demoon xam naa am nañ tuuti coow parce que euh, dimanche bi mu fay dem dani su ko fayul xaalisam na ko delloo ay bijoux waaw waaw loolu la waxoon xarit bi na maa ngi fay dem mais su ma fayul daf ma delloo sama xaalis samay bijoux ginnaaw bi nag ci loolu xam naa ni fa la affaire bi jógee waaw parce xam naa ne jëlul intention fay mm-hmm. ndax ñu ngi ci ay problème mm-hmm. bon wa ilaa mu convoqué ko feneen mm-hmm. na ko nen dem ma fay la pour meeb ko mais ce que foofu noonu business bi si yéen ñett rek la yemoon wala xamu leen woon beneen intermédiaire ci diggante bi non euh, man sax peut-être bokkuma ci woon noonu parce que dama fekkee rek bi mu koy jox mais man après bi muy dem di fayee kook yëpp ñoom ñaar la ñoom ñaar la dañ koo booleek moom mu jox ay d'ailleurs liggéey bi tamit noonu la bu ñëwee dañuy jaay bind bon dañuy dañuy lebale ku avance ñu bind ku fay ñu bind noonu la demee xëy na kii moom da cee nekk exception boo xam ni fooguwuñ ko woon daal waaw ndongo nga wax ñu ci moom ban façon nit la woon ko am dal euh, si côté diine gi dégg naa sax tey tey tey dafa waroon tukki ji waaw loolu moom ci côté boobu moom vraiment mosuma gis ku mel ni moom ci côté boobu maanaam ci diine ci yaru nekk nañ lu yàgg sama rakk la mosuma gis benn benn benn problème wala dara luy nuroog lu dëng wala dara ci moom mosuma ko gis fajar day julli ji juma jàkka ja euh, waxtu moom fu mu ko fekk lu mu yoroon da sànni dem dem julli ji waaw bu ñëwee sama place sax bu doxi jee ba ñëw dem njaay ay bagage su ko fa waxtu julli fekkee du jullee ci place bi jàkka ja lay dem waaw bu ñëwee sama kër jàkka ji gën a jege lay dem du julli ci kër gi waaw lundi day woor jeudi day woor waaw loolu moom xam naa ko moom ay at dañu daan tegal boolu añ ma koy tooñ naan ko sawaay kaay xool añ bi mu ne woor sawaay añal rek ma ne ko yow doo xaar ba weeru koor gi ñëw moom man tàmm naa ko ba pare waaw loolu moom alalam tamit kum ci mën a dimbali da lay dimbali waaw loolu moom sama frère la mooy sama caatu yaay mais ku mel ni moom ci famille bi amul. Eh, askan bi mën nañ xam ne ki nga xamante ni moom la mbir mi daal nit ku yiw la nit ku baax la xëy na yàlla. moo ko boole ak defkatu ñaawteel. waaw tey c'est la première fois. yàgg na jëflante ak ay nit mais lu mel nii mësuma xaa gis mu xuloo xeex mosul am amal nañ njariñ njaboota ok famem moom ana ana bas ki mu doon jëflantee mi ngi si loxo yoon wala boobu la ñibbi mi ngi ci loxol yoon tey nañ ko depuis démb ci suba biñ ko yóbboo ñun ci golf foofu boobu lañ ko téye di def enquête bi mais enquête bi par la suite day gën a aggravé wu parce que moom li muy wax ak li enquête bi di génnee dafa wuute. surtout li xew waaw surtout lu xew tey. dafa wuute. ndax fu mu wax ni fa la nekk rek bu ñu defee test dañuy gis ni waxul dëgg localisation bi day génne le contraire waaw day génne le contraire. moom amoon na soxna. amoon na soxna ak benn doom. waaw am sax fi mu noonu daa toll diggante. waaw tey dégg naa waroon la waroon dem daggoon na biyam ba pare. dimanche matin bi noonu huit heures la dem dafi test. Covid pour mën a voyager tey. voya euh, Dubaï la waroon dem Dubaï la mm. Mhm. Mm. famille bi naka la ñu accueillir mbir mi ak surtout yow xam naa ne moom yaa ngi wax normalement waaye am nga lu la métti moom. man kay métti fa mu tàmbalee rek fa la yem sama lépp la ba pare déggal ma mm. waaw lu muy def man lay jiital waaw. lan ngay conseiller. askan bi parce que mi ngi nekkoon ci business yàlla boole kook defkatu ñaawteef ça veut dire que loolu mën na nekk benn leçon boo xam ne pour ñëpp la. moytu rek pour ñëpp ba nit lu mu la war a jox ak fu mu la mënti convoqué bul dem parce que ki jël intention pour jox la moom waram pour fay la mm, pour man du demee nii daal. ay témoins. waaw ndax. Euh, man bu ma yëgoon ni moom dañoo am problème ci diggante bi wala ma yëg ni loolu la ko waa ji deseel dinaa ko ni booy dem ñu ànd waaw ndax bu ñëwoon jël si ma baatak tontu la ndax fu ma woo ma jóg. waaw fi ko fekk tamit dafa mel ni kii tamit xaw na jaaxal ñu ba dégg naa fajaal dëkk ñu fekk ko biir parcelle. waaw tey Malibu lañ ko fekk. déggal fële euh, nu mu tuddati. waaw euh, fee lañ ko jële ah, Cambérène. Cambérène 1 la kon du lañ ko fekk ca wetu géej ga. fa lañ fekk oto bi. waaw il paraît que bañ koo rey dugal ko ci biir oto bi parce que ci saaku lañ ko def waaw. rey bi man deew fa. bi ñuy jël koor bi. mais ñi dem nee nañ dañ koo dóor ci bopp. dóor bu metti daal boo xam ne ni toj na bopp bi waaw. waaw sama lépp la kii reyuñu ko moom rek famille la ñu rey famille entière parce que kii nekkoon na koo xam ni li muy def ci lu baax fonk ay kilifaam fonk ay waajuram ah kii li mu li mu yóbbu xamuñu xamu ko sax waaw parce que nekkoon na koo xamante ni bi ku jullite alalam du ko boole kenn kafure waxtaan day def te du wax ma alalam tey ji bu bu yoroon fukki junni képp képp képp képp nga soxla ko dala koy jox toog man xam naa ci moom loolu man moom jëflante nañ defal na ma loo xamante ni bii man ak yàlla rek ak moom ñoo ko xam waaw amul morom kii dafa rey famille li mu def ali àdduna jaru ko ci àdduna ali àdduna jaru ko jaru ko parce que kii ku jullite la ku lislaame ku baax ku fonk kilifaam fonk ay magam fonk ay rakkam amul benn problème kenn musu koo atte ci xeex kenn musu koo atte. Lamine nee kenn musu ko dégg ci bi mooy. pour la première kenn musu koo atte kenn musu koo atte c'est nag lii dafa nekk loo xam ni erreur la mais kenn musu ko atte te moom sax leer na ma ni norul woon a euh, joteeg moom waa ji boppam moo ko doon fexeel mais tey jii bu jëmoon a xeex ak moom sax daka naan man xeexuma xeexuma parce que nitu jàmm la nitu jàmm la nit ku dal la nit ku bëggi mbokkam kenn du ko dégg ci dara man de mosuma koo dégg ci dara lu mu yoree soo ko gënee bëgg mu jox la ko toog. moo mbir mi bu mu xewee yow bett na la parce que mosoo ko dégg ci coow. mosuma ko dégg ci coow dafa mel ni dañ maa gaañ bi ma ko yëgee parce que mosuma ko dégg ci benn problème vraiment mosul am. te xare ko àjjana te euh, rafet naa njort ni fa mu jëm moo ko gënal fi mu jugee man rafet naa ci njort.